dañu am naqar parce que depuis 2011 jusqu'à présent ñu ngi dund loo xamante ne neexul ñun bi ñu ñëw fii forêt classée la woon kenn ñemewu fi toog kenn ñemewu fi dëkk ku mel ni comme man bi fi fiy ñëw c'est à l'aide de président Ablaye Wade moo fekkoon fële route des HLM Tëngéej mu ne tu n'es pas compatible ak EFI bi ak euh, domaine bi nañu utal fu ñu nekk ci la ñu xool ba gis fii site bi ñu jox ñu recaser ñu fii ñu nekk fii di liggéey depuis 2011 jusqu'à présent mais lu ne dañ koy daj fii ñii kii di récupérer euh, kii di réclamer titre foncier bi muy réclamer nekul fi fenen la dañ ko dëpp ci fi fi li lepp Graziani moko mom kenen mom ko kudul Graziani ken Graziani mom mom fi Graziani dee depuis en 1982 ñun xam lepp lu mu demee mais nak Sénégal ku ne xam li fi nek fi plus de 20 nangam hectares mais def ko dispatching yaa ëpp tout lañ fi bayiné lolu Graziani la lenn li ñu né jox ko ñu jox ko ñenn ñeneen ñu jox ko ñenen ñun xam nañ lépp wax nañ ko même les titres originaux yi nek ci plan ancien plan cadastral yi soko xolé ak ñom titres yi demandé mais dañ ko dindi 700 fi 26 lañ mais même 26 liñ lañ wax nekkul ak il y' a plus de 13000 chefs de garage si activité bépp nga y' a les sénégalais les guinéens les maliens les mauritaniens les ñepp togolais ghanéens normal du cité dortoir

ñu à 600 millions c'est pas vrai mënul ne na ku nekk wax six sept hectares mënuñu millions mënul ne mënul pas. moom nag na jëndul moom nee na jëndul suuf bi ndax attanu ko mënu ko jënd xex bi la jënd ci yi seen suuf ñom biñu démé ba seen suuf néwul pas seen gaay seen suuf gaay nañ ko té war nañ leen ñun documents ànd na fekk d'escorte ñu ñew ñu def sen prise dama ne nañ leen ko bayyi bàyyi len ko bu len kenn laal bu len kenn tiital bu len kenn def dara ñew nañ def sen point ñew na fi vendredi samedi ci goudi ñew na fi samedi ci goudi di di xol te samedi ci goudi mu nit mënon na dal ci kom parce que ñun gardien ak bo ñi fi nek wax nañ ñuko le dimanche ñew na fi indi fi ay conteneur di fi xam je ne sais pas limuy muy li muy non du bax ndax ñun xam nañ fa mu jëm te mom buñu fa jitu président dañ lay ñaan bu fekkee dëkk bi dëgg rek nga wax moom lañ bëgg ñu doxal ko fi nañ doxul dëgg treize mille personnes ñu bëgg leen ñu bëgg leen éliminer noonu pour ay tierce personne loolu dafa rafetul te rafetul te neexul